يا غير ضيف الأدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi nga xam ne yéen a topp seen télévision bi nga xam ne moom mooy Ndindy Actu ñi ngi fas yéene ànd ak yéen ci jataay boo am solo ci diiru weeru koor bi yëpp muy yóbbalu koor muy am ba su set incha allahu taala ñu fas yéene ko ànd ak yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa ànd ak yéen ci koor gi ba mu jeex takk. mbokk yi ci jataay bi nga xam ne moom la ñu duppee yóbbalu koor muy am ba su set ci diiru weeru koor wi ci seen site internet bu am solo bii di Ndindy Actu ca mboolem lu ñu def ci xeeti waxtaan yi yàlla nekk loo xam ne yàlla na ko gërëm mu nekk jaamu yàlla gu mu nangu e, ci barke alxuraanul karim ñu koor ak jàmm wala ak jàmm ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fa seeni ko ànd ak yéen ci Ndindy Actu yóbbalu koor insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yaa xayra day fil aada hil bi wa madad هلا وسهلا وترحبا